والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلن دي زيارة كورغي آه، لكي دس بريتول يالنا يالا ننقل ننقل لن ما شاء الله لغي آه، لغا خمنتني مملن دون أنا تي قصة يوسف لغا خمنتني مملن تامبلي وان تي كورغي بلغي موي بغا خمنتني نيونا دي نيان جيك pour ñu bàyyi seen rakk bi Benyamin mu ànd ak ñoom dem keneen des fa te fa bañ ndax jubluwaayam moo doon téye ko ginnaaw bi seen mag bi nee nañ Chamoun la am na ñu wax ne Yahuda la ndax Chamoun lañ wax ne moo fa desoon moo fa desoon bi nga xamante ni e, téye nañ seen rakk bi mu ne moom du dem dafay continuer toog avant ñu téye seen rakk bi bi nga xamante ni nee nañ dem leen indi ji seen rakk bi bu ngeen ko indiwul du bu ngeen fi ñëwee dootuñu leen jaay moom moo fa toogoon léegi ngir comme garanti pour ñoom buñ demee ñu mën a ñëwaat ndax li mu doon bañ mooy ñu daw buñ demee toog duñ ñëwaat mu wax ne na fi kenn toog kooku fa toogoon sumoon la waaye nee nañ ci biir yoon moom ki nga xam ne moom moo jël décision wax ak ñoom te moom nee na moom du dem nee nañ yahuda la wallahu alam waaye lim leen waxoon mooy irjiu ila abikum fa qulu inna naka saraqa waaw maanaa dellu leen ci seen euh, waajur ngeen wax ko ne ko inna banaka saraqa naam ba dellu leen seen waajur bu ngeen demee yaa abana inna banaka saraqa seen waajur bu ngeen demee lu ngeen koy wax mooy yow suñu baay wax leen ko loolu ne ko yow suñu baay sa doom ja sàcc na sa doom ja jël na alalu jàmbur kon irjiu ila abikum daa mel ne yeddaange yedd la gum leen di yedd dellu leen ci suñu baay la waroon wax waaye dellu leen ci seen baay ndax xëy na mere na leen ci taxawaay bi ndax li li xew am na lu bari lum ko fàttali ci seen doxalin ak seen ñaawu jëf ci lu jiitu xëy na loolu tax na itam muy waxee ñoom ci anam boobu dellu leen ci seen baay bu ngeen demee ngeen na ko yow suñu baay yaa abaana ngeen woo ko ci turu na ko yow suñu bàyyi sa doom jade yi jël na lu moomul te nag li ñuy wax nii lañ ca seede dong lañ ca mën a wax wala boog mbir ma na mu demee lañ ñu ca seedeeloo rek loolu lañu waxoon ma shahid naa illaa bi ma alim naa mooy shahaada bañ defoon ca jataay ba ba loolu dugal xale bi ñoom lañu xam rek loolu lañu shahaada woon ci wax ne ki nga xamante ne bi moom lañ fekk ci moom yëf yi kooku moom lañ ko war a fayee moom lañu war a téye loolu moom ñoo ko seede waaye ñoom ci li ñu xam rek lañ sukkandiku seede kon bu ñu ci lii dalee kenn mënuñ cee yedd wala wama shahidna illa bi ma naa ci li nga xamante ne ñëw nañ indil ko baayam mooy liñ ko ci nettali mooy la nga xamante ne bi moom lañ teewe ca jataay gis ko léegi nag loolu lañ ñëw nettali ko ko nettali boobu lañ tuddee ash-shahaada wama shahidna illa naa mooy liñ la nettali nii ci kaw lu ñu xam gis ko ci loolu lañ ko teg waxuñu leneen lu dul loo xam ne loolu la kon loolu ñuy wax seen baay mel na ni am na luñ cay ragal luñ cay ragal mooy mu bañ leen a gëm luñ cay ragal mooy mu weddi leen comme ni nga xamante ne bi noonu la leen ñàkkoon a gëmee biñ ñëwee na ko suñu rakk ji nga xamante ne bi moom mooy euh, Benyamin boole ko ak ñun ñu delluwaat Égypte buñ demee dina tax ñu jox ñu ci dund loo xam ne mënuñu ko woon a am te mu ñàkkoon leen a wóolu ndax biñ ko waxee loolu rek xelam dafa dem ci yuusufa ma nga xam ne sànkoon nañ ko yuusufa bi nga xamante ne sànkoon nañ ko léegi nag biñ ñëwaatee tamit ci yoon bi lañuy wax dëgg la ci kaw ndax la mbir ma demee yépp amul luñ ca soppi biñ ñëwee niñ ko gisee ca xew-xew ba noonu lañ ko ko nettalee waaye ba léegi rek lu njëkk la topp leen mooy liñ doon wax ne min uqubatil kaadibi an yuradda alayhi sidquhu mooy ne ki nga xam ne day wax lu dul dëgg ba nit ñi jàppal ko loolu su moytuwul bis bu waxee dëgg itam nit ñi duñ ko gëm loolu xaw na dal fii moo tax ñuy wax ne wama shahidna illa bi ma alimna wama shahidna illa bi ma alimna wama kunna lil ghaybi xaafidin li nekk ci ginnaaw mbir mi dëgg-dëgg nag xamuñu ko moo tax mu ne wama kunna lil ghaybi xaafidin mooy wane ne ndax moo def walla deful dara wóoruñu ci ngir bañ a xëy na dugg ci di juger ak di wax ne dëgg-dëgg moo ko jël liñ ko tuumaal moo am ñu xamal ko ne ko loolu mënuñ cee wax ndax kumpa la ci ñun na mbir ma demee bañ tuumaal ko ba téye ko fa ump nañu loolu mënuñu koo xam wa ma kunna lil ghaybi xaafidin daa mel ne dañuy itidaar foofu utal seen bopp ngant dañuy utal seen bopp ngant léegi nag bi nga xamante ne ñëw nañ ci xibaar bu tiis boobu wax ko seen waajur mu nekkati lu metti loo xam ne nar na dalati ci kawam ci ne léegi ñàkk na daanaka mën nga wax ñetti doomam ndax ñàkk na yuusufa ñàkk na chamoon wala yahuda ma nga xam ne ma nga fa toog ne moom du dem te moom moo leen di wax liñ ko war a wax nii te biñ ñëw itam loolu lañ ko wax ñàkk tamit ki nga xam ne mooy benyamin di rakk yusuf ñoom ñett ñépp ña nga fa toog te ñooñu ñooy ñi gën ci doomam yi ñooy ñi gën a baax ci doomam yi nga gis yàlla buy nattu nit ku mu bëgg ni mu koy nattoo nattu bi nu muy tare nattu bi nu muy tare bi nga xamante ni wax na leen ñu wax ko loolu ne ko ma kunna lil ghaybi xaafizin dañoo daldi nag léegi ut ay firnde yuy wane ne li ñu wax dëgg la ndax xëy na mën nga ñoo bañ a wóolu waaye bi yoon moom boo laajee mbir mi nga laaj ci ay nit dinañ la wax ne ni ñu la ko nettali noonu la amee was'alil qaryata allati kunna fiha wal ayra allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun xam nga <laughs> moom bu waxee ba noppi ay preuve ak indi ay seedekat ak yooyu yëpp commencé di feeñ rek mooy wane ne am na benn xëy na susceptibilité ci ne ragal na ni ki muy waxal gëmu ko loolu nag mooy problème mu ñàkk dëggu ak ñàkk wax dëgg loolu mooy problème moo tax boo gisee ñi faral di ñàkk wax dëgg di bëri ay waat di bëri lu ñuy giñ loolu moo ko waral it ay aymaanahum junnatan la yàlla subhaanahu wa taala waxoon léegi ñu daal di koy wax ne ko na nga laaj dëkk bi nga xam ne fa lañ ne woon muy Égypte ci li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi muy Misr dëkk bañ nekkoon nanga leen laaj boo amee koo mën a laaj ku fa ku fa jóge ku fa nekkoon mën nga laaj nga xam ba xam xew-xew bi ni ñu ko waxee noonu la amee wala ameewul noonu ndax xabaar bi tas na fa nit ñi dégg nañ ko nit ñi yëg nañ mbir mi ni mu demee ne am na ñu ñëwoon jóge Sham ñëw fi di jënd si lekk ànd ak koo xamante ni dafay jël lu moomul ba téye nañ ko fi ba ay frère am dem nañ bàyyi nañ ko fi léegi laaj leen am nañu wax sax was al qarya ay was al ahlil qarya ndax dañuy wax ne loolu majaasu xadf la waaye li gën a wér mooy qarya dañ koy itlaq ci ñi nga xamante ni ñooy sukkaan yi di ko itlaq tamit ci al mabaani mooy baatu qarya ci boppam dañ koy jëf musharaka la dañ koy jëfandikoo ci ñaar yépp jëfandikoo ko ci ñi dëkk ci dëkk bi di ko jëfandikoo ci dëkk bi ci boppam ay naam ndax wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha yooyu yàlla subhanahu wa taala di wax wa ma ahlakna min qaryatin wa hakada loolu lim ci namm mooy jëmmi dëkk ba ci boppam qarya bi bu waxee qarya da koy itlaq léeg-léeg namm ci jëmmi dëkk bi ñi fi dëkk wala léeg mu namm ci tabax yeeg yu yu ni yu ni mel li koy sarfu ci benn jëmale ko ci benn ci ñaari baat yooyu mooy qarina moy lenn lo xamni da fay ànd ci wax ji lutax nga xamni nit ñi lañ ci nam wala tabaxé lañ ci nam mais ci ñaari anam yépp bu ci nekk day soxla qarina te dañuy wax ne al majazu la yahtaju al haqiqatu la tahtaju ila qarina takunu mutajarrida mom moy li nga xamante ne mooy nekk al isticmaalul asli moy mom lañu jëfëndiko ci ciosan wala ko majaz bi mom yahtaju ila qarina mais loolu dara wéru ci ndax ñaar yépp ay soxla qarina wax bu wax bu soxlawul qarina amul maanaa wax ju nekk ngir xam la ca borom namm ak lañ cay déggee faw mu am lu laxasu ci wax ji imma xarina qarina xaaliya aw maqaaliya muttasila aw munfasila ci lii la aju ci wax ji ci ni ko borom wax ji waxee ci ngay mën a xam lu tax nga xam ne baatu dëkk bi muy wax fii lim ci namm mooy ña dëkk ca dëkk ba wala dëkk lim ci namm mooy jëmmi tabax yaag kër ya waaw ndax dëkk bii day nangam sàngam nangam sàngam ñu xam ne kon yow li nga ci namoo ñi dëkk ci dëkk bi dëkk bi tàkk na dëkk bi nangam na nga ñu xam ne kon tabax yaak yooyu nga ca nam bu dee leen kon na ngeen laaj dëkk ba nga xam ne fa lañ jóge mooy ñu dëkk ci dëkk ba laaj leen leen ngir nga xool ba xam liñ lay wax dina dëppook li ñu waxam déet caravane bi ñu àndaloon tamit di mbooloo mi nga xam ne moom lañu àndaloon nga xam ne du ñun rek a demoon ndax bu ñu dem jóge Cham di dem Égypte dañuy nekk mbooloo mu bari takk dem bu ñu jógee foofu tamit àndaat ak nekkaat mbooloo ñibbisiwaat ndax boobu yoon wi sori na te tukki dafa metti donte diggante Cham ak Égypte taxu ko sori trop waaye bu ñuy dem li gën a wóor moo ñu ànd nekk mbooloo bu ko defee yoon wi gën a wóor ñooñu ñu àndaloon te bokkuñ ci ñun ñooñ tamit mën nga leen a laaj wa inna la saadiqun te liñ lay wax mooy ne ñun ci suñu waxi bopp lu bokkul ak looy laaj ñooñu ndax mën leen bañ a laaj mooy ne xamal na itam dañoo dëggu ci li ñu wax waaw wa inna la saadiquun mooy li ñu wax mooy li am as sidq mooy al ixbaar bi maa yu waafiqul waaqia te fii loolu lañ ci namm mooy li am ci réalité bi loolu lañ la nettali te soppiwuñ ci dara loolu yépp nag li waral ñu koy def discours boobu ak ut ay firnde yooyu yépp mooy la leen daloon ci lu ñu waxoon seen baay mu dem ba gis ne ndakate dara amu ci ndax ko ne ko yuusufa jox ñu ko ñu yóbbu ko dinañ ko sàmm dinañ ko nàngam dinañ ko nàngam bañ ko yóbboo sànk ko indil ko chemise boo xam ne la ca taq ci deret deret ja nekkul deret ju dëggu deret la joo xamante ne bi dereti caaxaan la loolu seen baay dem ba gis ko ci ñoom bu ko defee dootul wóolooti seen i wax léegi nag bi leen nattu ju mel ni dajee dalee ñu soxla mu wóolu leen mënuñu ko convaincre pour mu wóolu leen moo tax mu ne leen bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil asa allahu bi yatiyani bihim jamia mooy ne li ngeen di wax ni ragal naa ni am na lu lu leen seen bakkan yi xërati rek ngeen defati ko ci ay ñaawteef am na lu leen seen bakkan rafetal rafetalalati wala mu puus leen ci ngeen def ko loolu mooy ñàkk wóolu gim leen ñàkk wóolu mënu leen tuumaal lenn ne def nañ ko ndax amu ci ay firnde waaye am na lu mu ragal loolu mu ragal lay junj ci sawwalat lakum anfusukum amran beneen bi ci des mooy dañ ci déggee ne xamul kumpa kumpa yàlla moo ko xam te ab yonant la woon ndax la xew-xew ba am ak fa ñu dugal doomam ak la ca xew yépp xamu ko waaye yàlla la delloo mbir yi moo tax mu ne asallahu an yatiyani bihim jamia maa ngi am yaakaar ak rafet njott ci yàlla ne dina ma leen indil ndax yàlla moom képp ku muñ te rafetal yàlla du sànk mukk mukk mukk mukk sa fay yàlla du ko sànk kon li muy def mooy muñ te rafetal bañ a xàddi bañ a saalit bañ a jàmbat wala muy ñaxtu ndax yàlla bugul di teg jaamam nattu muy ñaxtu surtout jaam boo xam ne dafa xam yàlla jaam bu xam yàlla te ragal yàlla bu ko yàlla tegee nattu du ñaxtu ndax bu ñaxtoo rek yàlla yokk mbugal yokk yokk nattu bi nee nañ sax yaquba bokk nañ ci li tax yàlla tegaat ko nattu bu mel nii nit mës naa ñëw di ko laaj ci mbiru yuusufa mu ciy jàmbat di ko wax ci benn anam bi suñu boroom daal di koy wax yu ne ko moo ndax danga may jàmbat ci samay jàmm danga may jàmbat mel na ku may kalaame ci samay jàmm ci loo xam ne man maa la ko tegal sama bopp di nattu bu ma la teg sama jàmm mënu ci dara yàlla daal di koy tegaat beneen nattu di xool ba xam nu muy def moo tax ñi jàmm ñi yàlla gën a bëgg ci ay jaamam ñoom lay faral di gën a nattu ay nattu yoo xam ne yu metti lay doon yàlla jaarale leen ci xool seen seenuk muñ ak seenuk bëgg yàlla fu mu àgg ci ñoom ak seen dëggu waaye day yàgg day yàgg da gis ne yàlla da koy teggi ci anam boo xamante ni duñ ci jële lu dul ak yëkkatiku te yaqub gis nga fi ko yàlla subhanahu wa jaarale ci nattu yi nga xam ne yàlla tegal na ko ko yàlla teg na ko ko suñu borom subhanahu wa taala mu ñàkk ay doomam yi nga xam ne ñoom ñoo gënoon jege mu bëgg leen lool loolu tamit ñu siy déggee ne léeg-léeg suñu borom subhanahu wa taala bu bëggee fóot bakkanub jaam ak xolam ci yooyu mu bëgg yooyu la koy jaare ngir bañ loolu fatt xolam ba àgg ci moom foo xam ni mën na koo indil ak càggan ci yàlla ndax yàlla daa fiir day bañ bëgg gi nga ko bëgg nga bëgg leneen lu ni mel wala lu ko jege bëgg gu ni mel wala gu ko jege waaw moo tax kon comme doom yi dem nañ ba nekk fitna ci moom yàlla ne nañ ko sori ma xool ba xam na muy def waaw bu fi yàlla rek desee te yàlla moom moo moo ko soril ay doomam léegi lan lay def yàlla def loolu xool jaamam bi ba xam bu boobaa nan lay def loolu nga gis ni yàquba jaar na ci mu nekk natt yu méttee méttee metti waaye gis nga ko bi yëf yi itam yépp day dellu ci yàlla rek day dellu ci yàlla rek ci loolu lay jàmbat waaye jàmbat gi ci yàlla la koy dellu ndax biñ koy wax naan ko léegi nag daf ne leen innama ashku bathi wa xuzni ila allah wa alamu min allahi ma la taalamun maanaam samay jàmbat ak samay jooytu du ci nit ñi laa koy jëmati waaye ci yàlla laa koy jëmale ci loolu la leen wanee ginnaaw wa tawalla anhum wa qaala ya asafa ala yusufu wa biyaddat aynaahu min alxusni fa huwa kadim mu daal di leen fay bàyyi daal di tàmbali di naqarlu li dal doomam ji ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynaahu muy jàmbat waaye la muy jàmbat mooy naqarlu ñàkk gim ñàkk doomam bi nga xam ne mooy yuusufa tuddul shamoon tuddul benyamin yuusuf la tudd ndax fi ko yuusufa àgg kenn ci ñoom àggu ko fa beneen bi ci des mooy xam na ni mbiru yuusufa moo sookee li yépp yuusufa rek moo indi li yépp sànq gi ñu sànq yuusuf ak problème yuusuf moo indi lii am yépp moo tax bu jàmbatee ñàkk gi mu ñàkk yuusufa mel na ni ñàkk jàmbataane na ñépp waaw moo tax mu daal di leen di wax leen di wax ba noppi wan leen ginnaaw dem waaye ma ngay wax naan cey sama doom ji Yuusuf ay way maa ko am naqar ci mbiru Yuusuf maa ko am naqar ci Yuusuf yaa asafa ala Yuusufa am naqar ci mbiru Yuusuf ndax ñeewent na ko xamul ci lan la Yuusufa nekk xamul fa yusufa nek ndax xif na fa mar na fa ñang ko fay sonal xamu ci dara lolu ci li gëna metti ci ñak sa dom lolu bokku na ci du rek xeyna sax nek bim daan nek sa wet mu lay neex amatu loko waye njàqare li ngay àndal ci xamulo fa mu nek lu mu fay dund yan xeeti naqar ak metit lay dund ci àll bi njàqare gogu nek ci xolub wajur lolu metti na lol nga gis ne kon yaquba di tàmbali di souffrir am metit ci ñàkk gim ñàkk domam yooyu dem di ko jooy di ko jooy di ko jooy ba bët ya suulu mu silmaxa wabyaddat aynaahu min alxuzni fa huwa kadim mu dem ba bëtam ya suulu gisatul mu silmaxa fekk na boobu magal na ndax diggante bi mu ñàkkee yuusufa ak jamono jooju nee nañ bi mu dajawaat mat na ñeent fukki at bi leen yàlla di boole day jëlewaat fekk moom boobu magal na jeneen doomam ji mu fi dese woon di ko xaw a féexale xolam di ko fàttalikoo yuusufa ñu wax ak moom wax ak moom ba mu jox leen ko ñu yóbbu ko dellusiwaatul te lii tax doom jooju tamit ñaareel bi mu ñàkk muy metti ci moom mooy da cee am part de responsabilité ndax moo leen ko jox bu boobaal bu ko ñàkkee li muy wax li tax muy metti ci moom te mu koy wax ci xolam mooy su ma leen ko joxul woon li yëpp du ci am kon da ngay daal di culpabiliser sa bopp mooy day mel na ngay yedd sa bopp ci lu tax ma leen koy jox lu tax ma jox leen ko lu tax ma leen koy lu tax ma leen di wóolu liñ ma defoon ci yusufa yépp ba pare may wëlbatikuwaat di leen wóolu day mel na comme yow da ngay jàpp ne yow yaa def njuumte li yaa def fët ba tax kooku timit sànku nga gis ne kon muy wax ne kon yaa asafa ala yusufa wabyaddat aynaa nga gis ne kon bëtam ya dem ba jooy ba rangoñ ya ca nekkoon jeex tàkk tàkk tàkk ba bët ya mujj daldi suulu gisatul xëy na tëjuwul tëju bi nga xam ne mooy fermé wu waaye dafa dem ba per bi yàqu nga xam ni dootul mënati gis mu ne kon wabu yaddat aynaahu min alxuzni te dara waralu ko lu dul naqar ak tiis naqar ak tiis bu metti baaxul ci nit dafay ronger doomu aadama ndax daf koy souffrir loo souffrance boobu noonu muy mettit ak naqar boobu ci xol bi lay jóge di jàpp yaram bi am lu bari lu mën a yàq ci fonctionnement bi nga xam ne yaram bi daf koy fonctionner ak ni muy doxe ba tax nit ki di war di ko tiis ak yenn naqar yu metti yi di ko jéem a évacuer di ko jéem a fàtte di fenetal di jéem a xool lu muy def ba di ko oyofal ci boppam di ko alléger ci boppam ndax bu ko deful mën na koo topp topp ko topp ko ba jural ko ay xeeti feebar yoo xam ne lu bari mën na ko yàq ci yaramam ba sax mën ko faat waaw ci wàllu léeg-léeg problème cardiaque yu mën a indi ci nit wala ay tension yu mën a indi ci nit ak yu baree baree bari yoo xam ne mën na ko indi ci doomu aadama moo tax kon fii gis nga Yaquba li ko mujj dal dem ba ñàkk ay bëtam ndax di jooy doomam yooyu ndax am tiis ci doomam yooyu nga xam ne ñàkk na leen te kim ciy tudd saa su nekk mooy yusuf alayhi salaam loolu di wane rek fi ko yusufa àggoon wa huwa kadim kadim jooju ñenn ñi nee nañ mooy bi nga xamante ni mi ngi def loolu yépp timit waxatul dafa noppi rek mooy kadama mooy dafa noppi waxatul mu jël mbir mi bàyyi ko ci boppam al kadim huwa al katim ñenn ñi ci borom xam kon noonu lañ ko waxee waxuwa kazim mu mel na comme souffrance bu nekk ci biiram la boo xam ne boobu moo gën a metti ndax léeg-léeg am na ci yenn xeetu souffrance yoo xam nit ki bu waxee wax ji muy wax day tax mu wàññeeku tuuti da koy soulager waaye moom daa mel ne deful woon loolu ndax amatul ku mën a waxal ndax mere na leen mere goo xam ne amul lu muy waxati ak ñoom te loolu mooy li waral tawalli jim def wa tawalla anhum mooy wan gim leen wan ginnaaw dafa mel ne daf leen a bàyyi amul lu muy waxati ak ñoom bàyyi na mbiram ak yàlla waaye mettitam tamit tar na lool wax jim ci ñàkk waxati te di ko mettitlu fu mu toll loolu tamit tax mu gën a diis kon wa huwa beneen bi ci des mooy kadim ji ñenn ñi nee nañ du xëy na nëbb mettit bi waaye mooy nekk ku triste ku ànd ak tristesse bu méttee méttee métti mooy ku nekk ci tiis goo xam ne tiis gu metti la moom ñu tuddee kavim waaw maanaam kon jooy yooyu mu doon jooy di jooy yu metti yooyu yépp daf ko boole woon ak tiis goo xam ne tiis gu tar la ba tiis googu noonu moo waral ay bëtam yàqu ndax meñal xusni ji loolu day nekk e, rabt la muy lëkkale gu mu lëkkale ñàkk gi ñàkk ay bëtam ak tiis gi mooy ne tiis moo tax bëtam yi mu ñàkk ko kon bu ko waxaatee ci njeexital bi day nekk xaala boo xam ne xaala amma la d'une manière générale fële dafay nekk rek sabab li fuqdaani aynayhi euh, ñàkk gi mu ñàkk ay bëtam sabab bi mooy tiis gi waaye tiis gi tamit lu ko taq la lu ànd ak moom la loo xamante ni bàyyiwu ko benn yoon même sax bi mu ñàkkee ay bëtam ba noppi kon yusufa nekk ci anam bu mel noonu waaye loolu yépp li muy nekk nekk situation ba waxoon na leen ne leen innama ashku bathi wa xudni ila allah sama metit bi ma nekk ak situation bu jafe bi ma nekk ak naqar wi ma nekk tiis wi ma nekk amul kenn ku ma koy tawat ku dul yàlla mu mel na kon leçon bi daf koo daf koo jàpp léegi ndax julit bu gëm yàlla jàndu ko màtt ci pax ñaari yoon joytu woon na ca yuusufa yàlla dolli ko nattu kon bu ko lii dalaatee bi yoon du jooytu kenn ku dul yàlla yàlla dong la koy jooy mu wax baat baatuy ashku muy ashakwa jooytu ak jàmbat nee na yàlla lay jàmbat yàlla lay jooytu ci ñaan yi mu koy ñaan diis bi mu koy diis ay soxlaam waaw ak saraxu bu muy saraxu yàlla di ko toroxlul di ko ñaan ngir mu xettali ko delloo ko ay doomam loolu la jaam war a def jaam bu nekk ci njàqare dëgg-dëgg mbir yi metti jamono jooju nga gën a soxla ci dellu ci yàlla te lu mis tiis wi gën a metti situation bi di gën a jafe yëf yi di gën a xat ndimbal di gën a ñëw yàlla jamono jooju la gën a bëgg jaamam di dellu ci moom jamono ji jaam bi gënee nekk ci jafe-jafe ak ci njàqare jamono jooju la yàlla gën a bëgg jaam bi xelam na yar ci yàlla mu xam ne mbir mi yàlla la bu ko defee mu daal di wëlbatiku jël léppam delloo ko ci yàlla bu boobaa ngay gis ndimbalu suñu borom bu boobaa ngay gis kàttan ak mën-mënu yàlla subhaanahu wa taala moo tax kon mu daldi moom xelam dem ci loolu waaye bi nga xamante ni itam delloo na lépp ci yàlla itam terewul ba léegi xàddiwul ndax xam na ne xàddi jullit bu gëm yàlla du ko def moo tax loolu la wax ay doomam ne leen ku gëm yàlla am yaakaar ci yàlla du xàddi lu génne mukk mukk mukk xelam ci yërmande yàlla ak ndimbalu yàlla te espoir boobu dafa baax ci nit ndax lu situation bi metti metti metti metti am na yaakaar ju fi joo xam ne yaa ngi ko jël jëmale ko ci yàlla nit bu amul yaakaar jooju baaxul moo tax ñi nga xam ne gëmuñu yàlla nekk ci mettit gu metti metti goo xam ne àdduna da leen di mbugal ndax yaakaaruñu leneen lu dul àdduna te àdduna ku ko yaakaar moom képp mu mbugal la ndax dafa éphémère dafa éphémère voilà boo ci jàppee rek xam ne jàppoo ci dara léegi nag loolu mooy nekk mbugal ak mettit wi ñuy jànkoonteel ñoom mu wuteeg nag ak jullit bi nga xam ni moom bu ko àdduna bàyyi woon itam ak lu ko àdduna mën a def moom mi ngi yaakaar yàlla yaakaar jooju ne ci xol bi di ko dëgëral yaakaar jooju ne ci xel mi di ko dalal moo tax kon mu daldi leen di wax na leen yéen samay doom dem leen yaa bani yadhabu fa taxassasu min yuusufa waa axiihi wala tay asu min roxil dellu leen ngeen dem wëri ji yusuf dellu leen ngeen xooli ji yusuf ndax jàppoo leen ni mi ngi bërëb sàngam ndax lii ndax ñenn ñi mu fassiru ne sa salaf dañu wax ne xelam dafa tàmbali di ñaaw ci mbir mi ni mu demee mu ragal ne mbir mii kañuy wax di ko wax ak waxaat mbiram ca Égypte buy sotti ba sotti yusufa lay doon buy dañ de ko gëstoo ba ba ci ndax mbaax gi ñuy wax ci moom ak xam-xam bi ñuy wax ci moom ak mbiram daf ci mel ne ku sentir ku flere ne kooku du yusufa lay war a doon doomam la moo tax mu ne leen yéen samay doom dellu leen ngeen dem gëstu ji def investigation lijjanti jéem a xam mbiru yusufa nu deme ndax at tahassus dañuy wax ne fil xayri lay yokkoon bi xilaafi tajassus muy dem gëstu def ay enquête ci lo xamne sax xeyna luddul feñ ci kaw la da ngeen di jëfëndiko ay stratégie pour jema xam mbir mi nu mu démé ka fa nek kan la ak yu mel nonu xeyna amana mu nek yusuf bu ko defé ngeen dem wat gis yusuf ak frère mi waaye bi mi wax fofu tim yusuf la tuddu ak rakam bi tuddul ka fa tok ndax lu tax ka fa toog tudd ko ndax ka fa toog moo fa téye boppam kenn téyewu ko ka fa toog dafa téye boppam ne woon frèram yi man duma fi jóge di delluwaat cham lu dul ci benn ci ñaari condition falan abraxa al ard xatta yadana li abi aw yaxkum allahu li benn ci ñaari condition mooy tax ma jóge fi dem mbir mi doy na waar doy waar joo xam ne fii laay toog ba sama bàyyi jéggal ma jox man digal ne ma mën naa ñëw ma soog a ñibbisi sinon duma ñëw ndax tooñ wu rëy wi ñu ko tooñ man àttanuma ko kon duma dem kon loolu day wane rek ne kooku ku tane la kooku mën nañu wax ne moo tane ci ñoom nam leen waxee woon ne bu leen rey yusufa fii itam lii la wax yëg na àqu bàyyi ak àqu njureel ak dënge giñ ñu dënge seen waajur bu àgg ci moom foo xam ne tax na mu ne du fi jóge du dem dellu leen yéen waaye man duma dellu maa ngi fi fii laay toog al ard lim ci nam mooy mesr mooy égypte du ma fi jóge wala yàlla defal ma ma am pexe ci mën a ma mën a nangu benyamin mi jël ko moo xam ci xeex la ci doole wala ci lu mën a doon yàlla defal ma ci ndimbal ubbil ma ci yaxkum allahu li wala yaxkum allahu alayya yaxkum allahu lii mooy yaftaxu allahu lii yaftaxu allahu lii yàlla defal ma ndimbal ci ma mën koo jël bu ko defee ma jël ko daldi ànd ak moom indi ko ñaar yooyu daal benn imma sama waajur jéggal ma jox ma ndigal ne ma mën ngaa ñëw walla yàlla defal ma ndimbal ma jël yahuda ma jël euh, benyamin nangu ko daldi koy indi ànd ak moom bu benn ci ñaari condition yooyu amee dinaa ñëw su fekkente ni amul nag yéen dem leen te baa ma fi ñu daldi dem wax loolu seen waajur mu tontu leen lam leen tontu ba mbir ma àgg fa mu àgg ci ne seen waajur digal na leen ne leen nañ delluwaat te bañ a xàdd ci ndimbalu yàlla ak ci yërmandeem ndax jaam bu yàlla du mës a génne xelam génne yaakaaram ci yërmandey yàlla loolu dafa bokk ci li nga xamante ne ci bàkkaar yi gën a mag la doon la bokk ak lu situation dëgër dëgër dëgër lu mu metti metti bul mës a génne ci sa xel ci yërmandey yàlla yërmande yàlla yaatu ne yaatu ju toll ne lépp xaj na ci waaw jaam bi fu mu toll rek nay am yaakaar ci yàlla ak rafet njort ci borom bi ndax yàlla moom ni nga ko yaakaaree rek noonu noonu lay jëflanteeg yow bu yaakaar bi rafetee muy noonu bu yaakaar bu bu bu njort gi rafetee muy noonu bu njort gi ñaawee itam muy noonu kon jullit bu gëm yàlla day rafet njort ci yàlla kon foofu lañuy taxawee ba jataay bi di ñëw ñu soog a wax dellu bi ñu delluwaat Égypte pour jéem a dem def li leen seen bàyyi wax xool ba xam mbir mi nu mu demee wallahu aalam وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله رمضان